am rek tuur loo xam ni dañ ko ci leeral tuuti bala ñoo àgg ci ndigalul sëriñ bi ndax euh, loolu xew-xew bi mu amee man lu ma ko déggee ma dégg ñu ne dafa am benn moodo moodo boo xam ne kan la sant hmm, da koo dal bi ma ko déggee it ma laaj waaye waxuñu ma tur yi dañ na ma kan rek la sant ma laaj ñu ne ma ñu ngi dëkk ci gannaaw forage bi bi ma ñëwee ma jóg gëstu ñi nga xam ne ñoo sant kan te dëkk ci boori boori forage bi fu ma fi dem daal ñu ne ma foofu wax dëgg loolu yëguguñ ko ñu dellu ma joxaat na ma ñu ngi ci diggante raay bi ak marché daaru maraan ma dellu gëstu foofu ñi nga xam ne ñoo fi sant kan bi ma ko gëstoo ñu ne wax dëgg loolu yëguguñ ko mën a xam na nag loolu moom moom laa ci xam ci loo xam ne nii xam naa ko ma xam na kon léegi bu fi dëkkee it wax dëgg yàlla man tur sant yi ma waxoon gëstu naa ko ci dëkk bi waaye wax dëgg yàlla sant woowu gisuma ko ci xawma ci comme dal xawma ko it wax dëgg yàlla xawma it kër goo xam ne ci daaru manaan ci ko sant kan foo loolu am na fa loolu moo tax bii ma laajee mën a leen wax dëgg néew ma amu fi waaye nag sant yi ma waxoon de gëstu naa ko ci ñu ma joto xam ci daaru manaan waaye wax dëgg dëkkut foofu wax dëgg yàlla xawma ko foofu daal lool mooy xam na leeral bi nga xam ne moom laa ci leeral man leen nag néew ma amut waaye sant yi moom yaakaar naa ne amut ndax ñi fi sant kan ca dëkk daaru ma naan moom fenn fu ne gëstu naa fa waaye loolu moom amu fa moom wax dëgg yàlla lool daal laa ci xam ci leer boo xam ni moom laa leen di euh, leneen li ci des nag mooy digalul sëriñ bi ndax sëñ bi bi ma jokkoo moom ndax ma wax na ma ñoom ki nga xam mooy seen kilifa ndax sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifa général de Mouride moom rek lañuy ñuy duglu ay kàddoom di ko ñaanal mu yàgg fi ca wér ak sëñ Abbas Mbàkke mi nga xam ne mooy borom daaru manaan gi tey ndax kenn ku ne xam ne daaru manaan bi sëñ bi demee ci jéegi borom daaru musti la ko dénk mu nekk fii ci borom daaru musti joog leen lu lu ko sëñ Tuubaa euh, digal walla lu mu ko defloo loolu moo fi ne ay sëtam ba tey ñoo fi ne sëñ Abdourahmane mii nga xam ne moo ko sëñcoon ci loolu la ko sëñcee woon kon sëñ Mbàkke mii fi nekk ci loolu rek lay wéy sëñ bi rek la amuñu beneen xalaat amuñu beneen ci lu dul ndigalul sëriñ bi ndax ndigalul sëñ bi mooy lépp ndax bërëm da ndax yi mu fi toog ci turu sëñ Abbas Mbàkke la fi toogee ci sëñ Abbas turu sëñ Tuubaa la fi toogee kon sëñ taxaa mooy sëñ Tuubaa mooy lépp kon loolu ndigal loolu dong ci la ñu ci lañ xalaat yooyu ci lañ ñuy amuñu benn ndigal amuñu benn xalaat lu dul xalaatu sëriñ bi rek sëñ Muntaxa ndigal li mu jox rek sëñ Mbàkke ne ci la ñuy wéy tey ci la ñuy wéy ëllëg ndax mooy Daaru Musti waa léegi nag nee na it wax na ma ne nañ fogoru bu baax ci li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi digle ñu fonk ko ci jàpp ko bu baax ndax ñoom ñoo xam li nga xam ne ñoo mën a aar doomu aadama kon bu jegee ci ñoom ñëw ci ci jotuma jóge ci ndigalul sëriñ bi ñun murid yëpp ak ñun nga xam ne ñooy taalibe yi loolu ñu ko sëñ bi waxee rek noonu lañ koy defee loolu la sëñ bi wax na nañ ko defee ñëpp seetuñu lu am seetuñu lu amut sëñ bi la xool tey moom la ñu xool ëllëg waxam la ñuy diwlu tey wax waxam ndax waxam moo nuy jëriñ tey moo nuy jëriñ ëllëg kon nag loolu ci wax jooju la sukkandiku mu wax ma na nga na ko wax mbooloo mépp kenn ku si nanga nga fagaru sa kër nanga nga fa def ndox ak saabu ak eau de Javel ñi di ko fogar di ko ci lépp loo xam ni xam borom xam-xam yi digal nañ ko ak nu ñu ko digalee ñu jéem koo defee noonu ñu ñu ko waxee loolu la wax na naa ko wax njaboot gépp ñuy wattandiku bu baax nag ci topp ndigal yi te yenn daj yi nga xam ne dañuy kii buñ ko mën a mayu ñu di ko mayandi ko ñun nag amuñu lenn lu ñuy kii lu sëriñ bi la ñuy diwlu ndigalam ndax sëñ Mbàkke la ñuy diwlu ndigalam te sëñ Mbàkke ndigalul sëriñ bi rek la ñuy ci lay nekk tey ci lay nekk ëllëg lii daan mooy li nga xam ne boroom xam-xam yi nga xam ne nag ñoom ñoo fi ne ah, li ñu xam rek ci la ñu mën a wéy moo tax biñ ne nangam am na duñ ko weddi daa toll nit mun na nag gis naa nangam ci gisu ko wala mun a xam naa nangam ci xamu ko ndax man bu ma tëboon na xam naa diw ci xaw ko danaa am problème wala mën a kër sàngam la te du kër googu danaa am problème loolu tax mën a xaw ko gisu ko waaye li ñu wax moom dëgg la lii mooy tax moo wax loolu gannaaw bi nag gëstu nañ ba xam nañ fi mu ne xam nañ ni tur wuñ ne moom noonu la tudd man nag waxuñu ma woon ndax man kan lañ ma waxoon te yaakaar naa ne ki ñu wax ne noonu la euh, fa la jógee santul kan ci niñ ma ko waxee santul kan kon nag foofu lu nga xam ne daal euh, sëñ laa sama xam-xam toll